yëgal rek ni yéen a ngi derrière vos leaders te na ngeen xam ni loolu leader bu ko am dara desetu la lu dul dem ci mbir mi ba jeex ci tàkk rek may nuyu leader yi fi nekk yëpp ku gis lii ku gis plateau bii ñi fi nekk ñëpp ngeen may ma ma wax leen ni ku gis Cheikh Tidiane Youm wala ma ne ku gis sëñ Moustapha Sy gis ci wetam honorable mon jeune frère un de mes dans la classe politique Déthié Fall gis suñu sëriñ suñu kilifa sëñ Mansour Sy gis nag suñu doyen bu exceptionnel exceptionnel efficace def liggéey bu extraordinaire ci coalition bi te nit ñi xamuñu ko peut-être muy suñu doyen Habib Sy. question tam docteur Cheikh Tidiane Dièye bi avenir bi ñu bëgg gis suñu shérif Ahmed Aïdara waaye defe naa El Hadj Malick ak ñi fi nekkul ñi fi teewul parce que newuñu fi sama yaay ji Aïda Mbodj. ñu koy ñaan mu yokk ñaan ndax actuellement mu nga màkk di umra Cheikh Tidiane Dieye Moustapha Girassi Djibril Diop euh, mon frère Thiam Babacar Diop defe naa fàttewuma kenn waaye su ma fàttee dinañu comprendre ku gis lii yëpp daje nga xam ni lii du coalition bu ndaw lépp daje nga xam ne ci qualité ak ci quantité nous avons ici la plus grande coalition politique du Sénégal waaye li ma bëgg a wax rek mooy ñun bu ñu fàtte lan mooy suñu jubluwaay élection locale benn étape la rek ci fi ñu bëgg a jëm nañu fàttaliku ni d'abord suñu combat dafa yaatu combat africain la panafricain la Afrique dafa tàyyi dafa sonn ci nekk mbalitu àdduna bi les Africains en ont marre d'être à la traîne de l'humanité les Africains ont décidé de prendre leur destin en main et partout en Afrique s'exprime désormais le réveil des des consciences vous voyez ce qui se passe au Burkina Faso vous voyez ce qui se passe au Mali vous voyez ce qui se passe en Guinée et vous voyez ce qui se passe ici kon bu leen fàtte loolu mukk li ñuy xeex ci élection locale benn étape la donte am na solo bu ñu fàtte ni fi ñu bëgg a jëm wala fi ñu war a yegg pour soppi réew mi soppi Afrique ëpp na loolu moo tax ñuy waat ñëpp ci mobilisation autour de la coalition dañoo génn ci investiture ñëpp xam nañu investiture lu métti na bëri na ñoo xam ne mer nañu parce que la ñu foogoon wala la bëggoon amuñu ko waaye bu ñu fàtte ni àdduna bi walla Sénégal du taxaw keroog le 23 janvier 2022 lay suñu mbëbët ci Sénégal ak la ñuy xeex du jeex keroog le 23 janvier 2022 kon ñi ngi woon ñëpp ñu dellu si daal di mobiliser waat autour de l' essentiel te l' essentiel mooy coalition bi ñu am ñun ñëpp xam nañu liy soppi Sénégal du génn ci lii kon yéen ñi teew fii loolu bu leen ko réeree mbir 2024 la ñu jëm te gannaaw 2024 ñu boole suñu doole boole suñu xam-xam. daa di soppi réew mi yeewi askan wi ba yaakaar gi Sénégal yàgg sénégalais yàgg am xaar gi ñu yàgg xaar lu weesu 60 ans loolu lépp firndewu ci ni ñu yoree réew mi est-ce que pare ngeen pour loolu. may wax nag tamit may wax tamit ne élection la ñu jëm dégg naa ay nit di jël ay initiative ne dañoo bëgg. mbooleem ñi seq mbir mi daal di signé benn charte pour la non violence man de damay wax man Ousmane Sonko du ma signé benn charte pour la non violence. rafetlu naa rafetlu naa naa seen yéene torop waaye nag gis nga violence kenn ku ne su defee li mu war a def. kenn ku ne yem fi nga war a yem violence du am te nag bu ñu nangu parce que am na do xam ne dafa commencé ni roog naa fekk ngeen baal ma si wax ji parce que violence yëpp ci benn côté la jóge musoo gis opposition attaqué toujours les mêmes ñooy attaqué ba pare làqatu ci gannaaw force de défense et de kenn ku ne yemee fa nga war yem jàmm dina ne ñooy lu ko may nag li ma leen di wax yàlla santaanewul kenn nga dem joxe sa bopp ñu lay duma ku leen xosi sox leen ko nga Sénégal Sénégal dafa am ay nit yoo xam ne heureusement bëriwul ñun mën nañu yëpp di ñu saaga ñu ci leer day romb mën nañu fay ay nit ñuy bind bis bu ne di wax lu ne si ñun day romb waaye yenu ay yet yenu ay paaka ñëw de dañ dóor duñ ko nagul kenn dama ne dama ne xam ngeen ni ñii tolloo ñoog ñoom duñu sax seen morom moo tax ma ne leen ku leen xosi dóor leen ko may jéem ku leen matt ku leen matt du leen bëñi loolu rek mooy solution bi parce suñ ko seqoon ak ab nit sax ñu wax waaye xam ne ñu ko seqal ñu doon. kon fu may daanelee nag mooy nañu mobiliser wu autour de tous nos candidats ci Sénégal ndax nag ñoo ngi présenter candidats yi waaye fàtte nañu nag ni candidat yi fii candidat fan kon dama bëgg ngeen ànd ak man wax ndax enjeu bu a rëy la xam ngeen ni waa ji fi mu ne nii looloo ko tere noyyi ndax làbbaliñ ko fa làbbali 2019 ba léegi di ko moo tax saa su ne ñu ne léegi lu bees mooy gis ngeen tey nee nañu signé nañu convention ak pour tabax ay pont Casamance lu baax la soxla nañ ko nee nañu tey taxaw nañu les points nano crédit baax na. nee naa nag sama mbokk Casamance yi fu ñu nee alhamdulilah war nañu ne nag jërëjëf Ousmane Sonko. ndax dinañ leen dinañ leen xëppal lu ne ci jamono ji ñu toll. waaye le ca guddi ñii bu ñu amee pour cent ngeen xam ni duma Ousmane Sonko.

xare jot nga wëlbatiku doo ko gis. dama nag loolu laa gëm ñaareel bi foofu lay daanele Barthélémy Dias kenn du ko jox mairie mu jaay ko Macky dina ko jël en tant dina ko yor en tant qu'opposant mille 2024 ñu ne du waa ba biir bi weex taal ñu ne ko rëpp ñu yor ko. continuer ko yor en tant que mu ko yor en tant que ku bokk ak ñiy defar réew mi soppi réew mi moo tax ma ne Barthélémy Dias maire de Dakar asalaamaaleykum